musulman bi Sénégal daje nañu ni ñu daan daje ci ngoonuk tey jii muy bisub talaata tolloog ñaar fukki fan juróom ñeent ci weeru Sha'ban muy baraxlu 1444 mu dëppook le 21 mars 2023 doon saytu lu jëm ci weer wi nga xam ni moom lañuy tertu muy weeru koor gannaaw bañ ko gëstoo ci biir réew mii di Sénégal gëstu ko tam ci biti réew yëg nañ ni weer wi feeñut kon ci loolu suba ci àllarba ji tolloog 22 mars 2023 mooy mottuli weeru shaaban bi mu nekk fan weereelu fan gannaaw ëllëg muy alxames le 23 mars 2023 mooy bis bi nga xam ni ci lañuy tàmbali weeru koor gi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul ñu nangul leen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi